Euh, maa ngi rafetlu teewaayu jigéenu amicalu Sénélec di rafetlu taxawaayu euh, secrétaire général bi monsieur Dia bi nga xam ne ne mi ngi ñëw représenté directeur euh, Sénélec monsieur Mata Cissé di xam ne ne jigéenu Sénélec desuñu gannaaw ci combat contre le cancer parce que ñëw nañu pour ñëw jàppale liska, pour liska jàppale jigéen yi donc ñoom seen euh, euh, homologue jigéen ci Sénégal sénégalaise yi euh, euh, kii na leen euh, ñor na leen donc loolu maa ngi ciy rafet lu lu baax a baax ba pare tey bés bi nga xam ne ne mooy dernier jour mois d' octobre muy 31 octobre ñoom ñu ñëw wane ne ñu bëgg ñëw accompagner te du bés bii rek te dañuy nouer ay partenariat entre l'amicale des femmes de la Sénélec ak euh, l'ISCA loolu ñu ngi ciy rafetlu donc euh, xëy na dañuy wax ne canceru jigéen moo ñu cancer mais canceru jigéen mooy cancer yi nga xam ne ne cancer yu jëkk ci Sénégal soo le cancer yëpp nga cancer ko cancer mo moo après cancer buntu butitu njurukaay donc ni ñu ñëwee foog naa ne suñu naataangoo jigéen yëpp xam nañ ne euh, ñu ngi koy rafetlu donc euh, ñu ngi rafetlu euh, li ngeen ñëw jàppale ñu donc ci wàllu dépistage u cancer du sein bi mooy ne ne ci wàllu subvention wu mammographie bi ñu ngi koy rafetlu te ñu ngi ñaan yàlla suñu ñu noué partenariat yi nga xamné né dina jëm euh, kanam ci ay at yu bari nga xamné né dina ñu mëna dem ci yenen gox goxat yi nga xamné ne ne su boba amical bi su boba mo ñuy accompagner parce que ligue bi du octobre rose dong donc à part euh, c'est vrai que octobre rose moy wër bi nga xamné ne ne moo gën a gudd te activités yi c'est 31 jours mais en dehors d'octobre rose ñun dañuy liggéey donc nous avons duñ ko médiatiser comme nous avons koy Octobre Rose parce que les journalistes, au passage maa ngi leen di sant di rafetlu seen taxawaay euh, yéen yéenay dugg ci biir foyer yi donc nous avons véhiculer ce message ñu fait koy rafetlu parce que lu tax sax profiter occasion l'occasion de faire rafetlu naa parce que le 28 octobre nous avons une consultation au stade de l'amitié

amul mag amul ndaw cancer fépp lay laal te su laalee sax sa dëkkaan euh, sa dëkkaale laal na la donc képp nit ki nga xamné né ne mun nga dugal sa loxo ci sensibilisation bi ci éducation bi ci information bi ci dépistage bi LISCA mi ngi rafetlu seen taxawaay ci loolu la parce que loolu dafa am solo xëy na ñun ñu fi nekk wuñu mais am nañu LISCA 24 euh, membre moo ci nekk ci CA bi douze membres bureau yi mais li ci des yëpp ay bénévole la te LISCA membre yi nekk ñun ñun ñëpp ñi nekk ci bureau bi ak ci conseil d'administration bi ñun ñëpp ay bénévole lañu dañuy ñëw jàppale def sañu li ñu war ci askan bi te yàlla rekk a tax parce que euh, c'est un don de soi que nous faisons pour euh, pour suñu co-citoyen nous xam ne ne cancer bi mi ngi fi mi ngi lor euh, ay nit yu bari donc manko koy rafetlu buguma gën sori mais rafetlu engagement bi nga xamné ne wa yi waa nañ ko auprès de la liska. te yalla nañ ci yalla défal jamm bo mëno def ay djégo yu bari bari ba cancer bi wañ ci ko ci Sénégal merci beaucoup